li nga xam ne moo ñu dajale fii tey nag mooy li nga xam ne moo ñu fa baaxoo dajale buñ tolloo ci di waajal tabaski mu doon sunna soo xam ne nii dafa war ci képp koo xam ne nii ab jullit la as gor la te mën na ko mu am ci yoo xam ne dañ koo sopp ci bisu tabaski bokk na ca nag muy ay yëre yu yees ci ku ko man yoo xam ne danañ ko mën a jottali suñ bokk taalibe yi bañ ko tàmbalee dañoo woowoon association tailleur yi ñawoon nañ ñu lu tolloo 468 pièces yoo xam ne ni yëre yi mi ngi tàmbalee sero ba quinze ans gone gu amagul at ba keroog nga am fukki at ak juróom ñawoon nañ ci yére góor yi tamit lu tolloog six cent soixante neuf yére góor kon li nga xam ne moom la tailleur yi ñaw mi ngi toll ci mille cent trente sept ñëwoon nañu junni yére ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar yoo xam ne nii ay yére góor la ak yére yu jigéen te lépp tamit yu yees la nga xam ne bu ñu ko doon takk daal lu mu néew néew liñ am ci ay yére yu ñu war a séddale ëpp na fanweeri junni yére loolu nag bu ñu ko comparé ak daaw day mel ne bu ren bi doublé na bu daaw bi waaye ni nga xam ne moom lañ ko bëgg defee tamit bu weesoo wàllum yére yi am na tamit lu ñu bëgg a ci ay koppar yoo xam ne dañ koy jàppalee lenn ci nit ñi ñi nga xam ne ñoo fi jotoon a bindu loolu nag dañ ko def ñaari pàcc dañoo am ñun jël ñoo xam ne nii ñu tawat la am ñoo xam ne dañ leen di jël ñu ñu ñu soxlawoo ay ay toilettes am ñoo xam ne dañoo woo ay néeg am ñoo xam ne dañoo soxlawoo ay fons jël nañ lu tolloog fukki nit ak benn ci ñoo xam ne dañoo soxlawoo ay toilettes ak lu tolloog juróomi nit ñoo xam ne dañoo soxlawoo ay ay fonce ak lu tolloog fukki nit ñoo xam ne dañoo soxlawoo ay néeg ak lu tolloog fukki nit ak ñoo xam ne am paj dañ soxlawoo ak lu tolloog ñaar fukki nit ñoo xam ne dañoo soxlawoo ay xadd ñi nga xam ne nii ñoo soxlawoo ay néeg liñ ci war a def lépp mi ngi toll ci 6 millions 500 ñi nga xam ne dañoo soxlawoo ay néeg ñu ci war a def mooy 2 millions. ñi nga xam ne dañoo wéradi liñ ci war a def ci jamonoy tabaski yi mooy 3 millions 267 mille 500 ñi nga xam ne dañoo soxlawoo ay xadd ñi ci war a def 3 millions 70 mille loolu lépp boo ko boolee mi ngi doon 12 millions 137 mille 500 mooy ñi nga xam ne dañ leen a war a taxawu ci wàllu googu li ci des nag mooy li nga xam ne dañ ko war a jàppale suñu bokki taalibe yi suñu jëm ca kër ga loolu itam ñu ngi koy xayma mu toll ci 10 millions jamono ji may waxee nii mën naa dem ba ëpp ko nag waaye li nga xam ne moom lañ bëgg a def ci social tabaski bu dee ci ay yére mu ngi doon 28 euh, millions yooyu ma waxoon ci ay yére mu ñaar fukki junni yére ak ak ak fukk ak juróom-ñeent moom lañ war a def ci ay yére waaye war nañ cee def ci ay koppar tamit lu tolloog ñaar fukki million ak ñeent ci jamono bii may waxee mën naa am nag mu ëpp ko ci kaw loolu nag ñi ngi sant bu baax mboolem ñi nga xam ne ñooñu coo dugaloon seen loxo ak ñi nga xam ne amoon na yéene ji jiital ci suñu kilifa yi taxaw waaye di sant soxna yi baax di ko teg ci loxob soxna Bintu Mbàkke mu suñu Abibu mi mu jàllale ko ci mbooleem soxna yi ak mbooleem ñi nekk ci réew mi ak ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñu leen di wooy waa diaspora rawatina kër gi nga xam ne nii moom lañ ñu abal xam ne fi lañ ko def muy sëñ Seexuna Njaay mi nekk Toscana ci dëkk bu ñuy wax Poggiobuense ànd koog ñoom sëñ Ibrahima Sall ak mbooleem dëkkandoo yu nekk fii yëpp ñu ngi leen di sant bu baax ak mbooleem membre Touba ci kanam yëpp comité directeur bureau exécutif ak mbooleem waa commission sociale yëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di daanelaat suñuy kàddu rek di ñaanal suñu sëriñ suñu wayjur bi nga xam ne daañu àndoon nag ñun liggéey bi ci fu mën a toll muy sëñ Mamour mu Cheikh Mamadou Fadal ñaan suñu borom gën koo yokk ay xéewal te gën koo dolli ay yërmaane ndax mbooleem lu ñu a ànd rek ci saayir ak ci baatin lépp mu ngi doon jàppale kon ñu ngi daanal foofu suñu kàddu. waaw mbir mi moom ni ñu koy distribuer comme ni commission sociale baaxoo distribuer rek lu lépp lu muy séddale mooy xool ñi nga xam ne ñoo ko gën a yittewoo ñi nga xam ne ñoo ko gën a yayoo ñu dem jox leen ko loolu nag niñ ko waajale niñ ko ni ko sëñ bi tuddee mu nekk ni ay mbuus ñu waajal ko mbuus bu nekk fi nekk nii def nañ ci fukki yére am na yére góor am na yére jigéen am na yére xale am na yére yëpp ngi ci biir ñu waajal ko muy fukki yére niñ ko baaxoo séddalee nag dañu def dem ci quartier yi waajal nañ ay oto yoo xam ne dañuy tànn ci sancaan yi ñi nga xam ne ñoo ko gën a yittewoo ñu sarse def délégation benn bu ñu demee ba ca quartier ba oto yi tasaaroo dugg ci biir quartier bi ñuy jël pari mbuus fekk ndaw yi am Pastef yi nga xam ne ñoom la ñuy àndal liggéey bi la ñuy àndal ñu dugg ci biir quartier bi jël ay mbuus waaxu ba ci kër laaj borom kër gi mu ne ko mi ngi nii ñu yëkkati mbuus gi teg ko ci loxoom moom moo xool na koy séddalee ak waa këram noonu lañ koy séddalee yëre yi li muy bari bari bari yëpp ñëkkul nag ne dañoo woo nit ñi naan nañ ñëw ca sees ba wala nañ ñëw fii ci magasin bi jël si déedéet dañuy dem fekk nit ñi ci quartier yi di leen ko séddale noonu la ñu ngeen def ba xam ñu ko yeeyoo waa niñ ko xamee ndax jamono ji nekk dañuy def ay visite de terrain ndax boo gisee lim bi nga xam ne sëñ bi tudd na ko ñoo xam ne dañuy sàkku ndimbal ci wàllu faj am ñoo xam ne dañuy sàkku ndimbal ci dëkkuwaay am ñoo xam ne ñu ngi sàkku ndimbal ci seen néeg yu seen am ñoo xam ne amuñu ay wanag déplacement yooyu nga xam ne jamono yu nekk commission sociale ak Touba ci kanam ñi ngi génn di dem di fekk nit ñi moo tax daanaka lenn lu ci nekk xam nañ fa mu gën a méttee donte kon xam euh, ñu bari yittewoo nañ ko waaye xam nañ fa nga xam ne ñu bari ñu ko gën a yittewoo fa lañ nekk foofu la ñuy sukkandiku ndax fu mu doon ci quartier yu wuute dem nañ fa lu ëpp fanweeri quartier ak juróom bu dee ci ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo wéradi dem nañ fa waaye ci ci benn mois bu rek laa laa wax ñi nga xam ne dañuy sàkku xadd dem nañ ci ñoom 18 quartier ñi nga xam ne dañuy sàkku ay ay ay wanag dem nañ ci ñoom fukki quartier ak ñaar yu bokkul te jamono ju nekk ñi ngi gën di dem ci quartier quartier yëpp la ñuy dugg ya gën a sori ba ci yi gën a jege moo tax moom ñi ko gën a yittewoo moom commission sociale xam na leen bu baax a baax waaw bu ko defee nag kon ñu ngi li jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñu ngi jàpp ci liggéey bi rawatina nag suñu mbokki téer yi suñu mbokki téer yi ak diaspora bi suñu mbokki téer bi ak diaspora yi ak waa presse bi nga xam ne tamit fu liggéey bi ak yéen ko fa àggale ndax yéen jot communication ba nit ñi yëg liggéey bi xam tamit tolluwaay bi waaye di taxaw fu ngeen toll di wane fi nga xam ne li ñuy liggéey fa lañ koy dugal ndax dañoo wax laaj luñ am def ko fuñ xam waaye xamle gi moom yéen waa presse bi la yéen ay xamal nit ñi li nga xam ne ñi ngeen koy jox fañ koy dugal kon ñi ngi leen di sant waaye di sant suñu mbokki soxna yi bu baax a baax a baax a baax a bàyyiwuñ kenn waaye ñu ngi santaat borom kër gi ak di santaat borom kër gi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo muy sañ Talla Fall nga xam ne bi magasin bi feesee démb ci guddi bagage yi ñëw amuñu fuñ dem biñ demee di wax waxi lu dañu jox na ko sëñ Touba aal nañu ko nga xam ne fi ne bagage yu bari àggagu leen fa waaye ma fa ñu ngi koy sant bu baax di ñaan suñu borom yokk ko kattan téer yi nag xam naa jataay bi xat na moo tax mënuñu tudd ci lim waaye muy téeri Touba ci njiital sëñ Mbay Sarr muy téeri Mbàkke yi ci ci bàyyiwuñ kenn daal liggéey bi rafet na set na ndax defe nañ ko yéene ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah